xamante ni suñu bébé la. Mm-hmm. di xaar suñu tata Marème nag. mu daal di comme mooy bàjjen bi mu def ñaar moom dina am doom moom tamit. <laughs> ñu ngi koy xaar <laughs> mais balaa jigéen bi su ñëwee rek tuddee ko. waaw mais balaa turandoom di ñëw. waaw comme am nga doom bu tuddu Macky Sall. waaw nest pas moom moo war a nekk bàjjen bi. ah si yow moo war a def valise ñëw def ñaatam ñaatam. ñëw di faafu moom nag daa ragal dee la màggee te waruma ragal man sa jigéenam la waaw lu war a ragal bi. xam nga dafa am benn période boo xam ne dama ne woon Macky Sall jëkkëru sénégalais yëpp la mu nekk waxu teranga rek. Mm-hmm. loolu waxu teranga Macky Sall sama càmmiñ la ñu elles l'ont mal pris entourage am xam nga entourage dafa am solo ci nit waaw ñom ñoy xam ba comme ñoy sédal wala ñu sédal ñu xam ba donc euh, juróon na ma nak ay galancor yu bari Sénégal lo wax ñu ne li nga waxoon moo tax mais lo amul solo manam mu benn problème xalé yi autorités yi laa koy tuddee Macky Sall mooy président de la République mo njëkk am turam déjà mom mi ngi fi voilà donc euh, légui jigen bi suñu nak dinaa ko tuddee Marème Faye Sall su ko defee mu giif <laughs> mais est-ce que jàpp nga ni la jàpp ba tey est-ce ah que ba ngay elle est sympathique. moi je l'aime bien. Ouais. elle est sympathique ni que c'est seenee si réseaux sociaux je trouve qu'elle est très simple. oui elle est simple. elle est très simple voilà. ni ma simple rek la gisee mu simple da on a quelques traits. Wa, di wax euh, nit ñi tamit ñu ñëw japp ci. social bi. waaw surtout les bébés. jappalé Tata ndé la. parce que mhm. engagement bi nga am. Mhm. c'est très difficile mhm. à prendre parce que fekk bon xam nga ni dañu amoon benn ak yi man mhm. yalla daf ma sutural ma may kër ba pare. Mhm. donc amna naa fu mu leen def quoi. donc euh, li si des nak mom yalla moo ñu yoré ñu ñëpp dé nu mo yoré rek la yoree xalé yi dé nu yoré sama doom yi ma jur ak sama doom yi nga xamné ne maa ngi leen yore indi ma indi ma xalé bi voilà. bébé baa ni bébé baa oh. <laughs> appel la. bébé Macky Sall ngi ni il est tout mignon. il est tout mignon démb len ko don wat. macha allah sant gi moo ko ah, wat mi ngi nelo mo mi ngi nelo ngent bi le 4 septembre la. le 4 septembre le 4 lay bolé ñom ñep ki len ngent len waaw. waaw le 4 defena dimanche bi di ñëw la dé waaw dimanche bi di ça passe vite hein. le 4 septembre ñu ngent len ngent prince euh, Ousmane euh, Bouya. Mm-hmm. ak euh, Macky si diggante bi mun na am keneen ko juddu. inshallah allah voilà ku juddu rek ñu ñu yoré ko. incha allah. <laughs> yal na yàlla yokk ah? xewal yëpp waaw. am na suñu nekk Gambie. am na ñu nekk Gambie ñu a ñëw waaw ma ne leen nag léegi du ma ñëw Gambie. da ngay yéen a ñoom ñëw indi kayitu xale yi su ko defee ma tey xale yi am benn problème. ah moom kontaan naa ci bébé Macky Sall bi. mi ngi nelaw ah mi ngi nelaw. ak mën a nàmp bi borom macha allah yàlla na juddu ba am ndey ak baay. yàlla na ñu màgg ba dina a de. vraiment engagement bu rafet la lii ku amul xolu yërmande rek mënoo ko Sonko dina am turam waaw sa ah kër mais waaye nag damay xalaat tataandee la kër gu bébé bu Ousmane Sonko nekk ak Macky Sall waaw ba doo atte ba di nga atte de dina ba <laughs> comme que Ndéla nga àtte de xam nga ñoom tam <laughs> ah. yàlla boo ci dolli nag euh, bébé Farba. waaw. ah kër googu dina rajaxoo Farba Ngom tamit ko dina am turam <laughs> bépp nit bu am njëriñ si dëkk bi waaw dinaa dinaa la tuddee doom macha allah mu nekk lu am solo waaw ñoom nag dañoo war a ñëw autorité yi nga xamante ni ah yi nga xamante ni tuddee nga leen doom ki ki ci njëkk mooy président de la république son excellence euh, Macky Sall Ndella Madior Diouf moo jël xale bi nga xamante ni yaayam amul doole mm. mu jël ko engagement indi ko ci kërëm jël tour bi dippeelu ko tour dafa fort donc ñi ngi ñaan autorité yi nga xamanteni ni la da jox seen turu bébé yi ñu ñëw sagal xalé yi ndax tour dafa fort nekk Tivaouane peul waaw mom na joxe hectare mom ah, ah. yow président Macky Sall rek nga bëgg mom président nga bëgg turandoo ma ngi ni nak kër lay laaj bu mag hectare rek ti peul wa inshallah ñu bayila nga def sa mot de la fin wax li nga Mami magita, ma ngi leen donc émission Binaire trop trop trop waaw Ndella Madior nak moy candidate à la présidentielle pas tout à fait comme les autres voilà une candidate euh, fashion une mhm. candidate maman c'est très très symbolique li donc je euh, naa damay xaba présenter présenté ba ba campagne yi passé ma doog djublu Je léegi non donc euh, xalé bu ñoom voilà donc et on va faire des reportages assez intéressants

En attendant, on s'occupe des enfants, on s'occupe de la vulgarisation du projet de société pour nit yi que ndaanaan na ñëw de waaw ndaanaan a ñëw nag ndaanaan dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg candidate <laughs> na si ñëpp a jàpp. allez merci.